jaajëfal nañ leen mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy teewlu ci IYAT TV yi ñu dalalaat leen ci xibaar Cheikh Bara Ndiaye moom nag daat nay def ab jàngat bu ama am solo fa nga xamante te seeni moo di Walfu moom nag daat nay xam le ne euh, kii di président ki Sall dafa nekk ci ab sélection candidature yi nga xamante ne si euh, ñoom ñoo war a dem ci élection présidentielle yu 2024 waaye itam euh, ànd ak moom loolu nag nekk loo xamante ne si Euh, kii di Cheikh baar Ndiaye daal dina ci addu di xamle ne euh, appel bi nga xam ne kii di Mame Mbaye Niang daal dina koy def ginnaaw ba nga xam ne euh, daal dina woon remercier lii di justice bi waaye itam bind ab poste lool nag li tax mu supprimer ko ay loxo ñoom ñoo nekk ci ginnaaw loolu nag Cheikh Bara Ndiaye di xamle ne kii di président Macky Sall dafa nekk di sélectionné ñi nga xamante ne si ne Euh, ñoom la war a demal ci élection présidentielle yi 2024 bu ko defee nag mu nekk ñoo xam ne euh, ñoom ñooy bokk benn bëgg-bëgg waaye itam bokk benn cas seen objectif moo di euh, fexe teg seeni dil ba tegaat président Macky Sall ci fi nga xamante ne si moom moo di palais bi waaye nag loolu nag Cheikh Bara Ndiaye mu xam le ne Euh, kenn waru ko nangu waaye itam kenn waru ko bàyyi mu jàll ndaxtekat yi yëpp ay provocation la yoo xam ne euh, nit ñi nga xam ne dañ ci faatu ak di ci ñàkk seen euh, seeni liggéey waaye itam di ci ñàkk seeni matériel loolu lépp kat yitteelut nguur gi ndax ñoom benn objectif rek lañ am moo di nu fi président Macky Sall wéy di fi dese loolu nag bum tere kenn daal dem bindu ji Euh, def li nga xamante ne si ne moo di sa warteef waaye itam daal di takku taxaw fexekat ba kii di président Ousmane Sonko euh, ñu bañ koo jaarale fi nga xamante ne si ne fi leen jaarale xalifa Sall ak ki nga xam ne moo di Karim Wade ndaxte euh, kii di président Macky Sall objectif boobu rek la am ndaxte kat moom amul droit bokk ci ay élection waaye itam Euh, ku dut moom rek war naa bokk ndaxte moom lii di loi bi moom moo ko tënk li nga xam si ne moo di constitution bi euh, moom moo dàq nekkat kii di président ki Sall waratu fee participer ci ay élections yoo xamante ne euh, mi ngi am fii ci Sénégal ndaxte kat li luwaa bi di wax ne nul ne peut exercer plus de deux mandats boobu kii di président mag Macky Sall moom moo ko xaati moon waaye itam jamono ji ki nga xamante ne moom moo nekk jëwriñ ji nga xam si ne moom moo yor wàllu justice bi Ismaïla Madior Fall moom kat daal na ci communiqué ba ñëpp daal di koy dégg loolu nag euh, mérito wut ñu dem ba jamono ji ñu mel ne koo xamante ne si dañuy delluwaat euh, mille 2011 ndaxte kat lii nga xamante ne si ne euh, moom moo nekk di xew nii moom moo xewoon 2011 kon que day mel ne lii di Sénégal Euh, amut benn avancement waaye dellu ginnaaw la gën a def buñ ko méngaleeg li nga xam ne euh, daal di nañ koy xeexoon ci jamonoy nguuruk Ablaye wadd ba jamono jiikat ñu daal di delloowaat ñu delloowaat ñu ci loolu euh, te ci ñi nga xamante ne si ne ñoo ko doon xeex ñoom ñooñ ci delloowaat loolu nag ñu jàpp ne Euh, mbeteel la waaye itam dellu ginnaaw mënta weesu loolu ak recul de démocratie boo xam ne euh, daat nay am fii ci réew mi waaye itam Cheikh Bara Ndiaye it daat nay àddu ci li nga xam ne euh, moom moo di acharnement bi nga xam ne ñi ngi koy teg ñii di waa Pastef ak nga xam ne moom moo di président Ousmane Sonko loolu nag nekk loo xam ne ku nekk daf cee war a jug daal di taxaw xam ne kat kii di président Ousmane Sonko ñii di nguur gi benn objectif lañ am moom moo di Euh, kii di président Ousmane Sonko ñu daal di koy xaj mu bokk ci élection waaye itam euh, bii la dossier bi dox ci diggante Mame Mbaye Niang ak Sonko dafa dépassé lii di euh, seetal sa bopp waaye itam dépassé na li nga xam ne moom moo di wàll justice waaye jamono jii Mame Mbaye Niang dafa jël boobee dossier di ko politiquer waaye itam ñii di gouvernement bi daal di nekk ci ginnaawam loolu nag nekk loo xam ne lu doye doye ku waar la wala mbokk ñu doon jox dig dajee ci yeneen xibaar leen wax na ngeen te activer cloche de notification bi pour bépp vidéo bu ñu dugal ngeen bokk ñu koy njëkk jot